dañuy sant yàlla mi nga xam ne may nanu lool beneen bi it mooy euh, jamono yi yëpp ñi ngi waxtaan ci cadre euh, naka la ñuy fexee ba li nga xam ne dañu ko dénk ñun ñi nekk biir cees ci ay compétences ñu fexe ba doxal ko ba li ciy sunu wàll waa Thiès sentir ko lii def ci bokk muy benn lu jëm ci gestion de déchets mais lu jëm aussi ci luy taaral dëkk bi Euh, mais ñëpp xam nañu aussi que cees dafa am lu ko yàgg sonal mu jëm ci wàllu inondation te saa ñu duggee ci nawet nit ñi war a doon loo xamante ne dañ koy teeru ak mbégte mu rëy yenn saa yi day ànd ak tiitaange ngir yàqu-yàqu yi am te yàqu-yàqu yooyu lu ci bëri nit ñi xam nañ ni jógewul biir cees day jóge ci plateau bi ngir ñàkk bu ñu ñàkk toppatoo écosystème bi ñàkk bu ñu ñàkk toppatoo environnement bi ba tax na mu détérioré wu ba fu ndox daan jàdd di fa dem bay créer ay déeg yu nga xamante ni daana tax Thiès ndox mi du ko songe ni mu koy songe tey loolu amatul ba tax na ñëpp yëg nañu programme bi nga xam ne ñun waa Thiès yëpp ñoo ko bokk euh, te tey jii taxawal benn unité de gestion du projet colonel Samoura bi ñu doon tudd léegi mooy coordonnateur bi programme boobu ci boppam maanaam ci wàllu njëmbatum garab da cee prévoir lu bëri mais le maire Arni Sow am na ay urgence yoo xam ne du ñu xaar loxo allemand yi day anticiper ñu am lu mu doon lu ñu rafet lu ñun ñëpp ngir euh, bu fekkee fii dafa bokk ci bunt yi ñuy duggee ci biir Thiès su amee ci loo xamante ni dafa nekk euh, ay xajam-xajam yoo xam ne ku fiy dugg ku ne y compris ñi nga xam ne dañ fi dëkk saa su ne euh, suñ fiy dugg duñ ko rafetlu dafay jaadu nit ñi joxante seen i yoxo maintenant nag jiital ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ndey mbill ji fii parce que si barab bi ñoom la ko suñu borom dénk ñoom la ko population yi dénk ñoom la nekk ci seen loxo ñu jiital leen ànd kook ñoom fexe ba mu gën a rafet une fois ñu defar ko nag ñu fexe sàmm ko euh, sàmm bi daf ci am solo bi ñuy ñëw léegi am na kenn ci charité yi euh, maa ngi koy maa dab sax di ko wax ne ko sa sa pneu wadd na ndekete pneu yi dem yu muy sànni ji la mu mel ne yoonam newu si xam nga yooyu Euh, ci ci lañ ma xamal ne ma kii dafay sànni ji na alors mu bàyyi waddal ko fu ko neex parce loolu aussi ci sàmm bi la bokk parce que tey jii bu fekkee ne def nañ fi lu rafet lu jekk te benn citoyen mën a romb gis kenn bu ko yàq bu ko buddi mu taxaw di seetaan du sotti kon nit ñi aussi la surveillance urbaine citoyens yi la d'abord avant muy dem ci service bi parce que bu yàqu-yàqu amee citoyens yi lay yàqul parce que tey ku fi romb moo xam nga jóge Sénégal wala feneen fu mu manti doon boo fi rombee gis fi la fi naqari mais waa Thiès ngay wax avant toute chose danaan Thiès daal moo salte Thiès nii cees na li te loolu ñun duñ ko nangu parce que boobaak léegi ni effort yi ñuy def pour que Thiès gën a set effort yi ñuy def pour que place publique yi mu teguwaat ci yoon effort yi ñuy def pour que ci wàllu encombrement ñu jëm ci te on a vraiment la ferme volonté ensemble di yale effort yooyu dañu bëgg ñu préserver leen et que l'ensemble des citoyens de Thiès aussi jàpp ci ngir Thiès jëm ci kanam vraiment encore une fois je félicite le maire Alioune Sow je félicite aussi l'ensemble des maires yi nga xamante ni pour cette prise de conscience commune que nous devons dans le cadre de la mutualisation euh, nous donner la main et travailler pour faire avancer Thiès merci. oui lu gën a jege gën a yey. oui euh, euh, je voudrais d'abord lancer donc un appel. Euh, à l'ensemble des populations donc euh, riveraines donc de cette décharge euh, de Thiès pour qu'elles contribuent à veiller sur cette place. Je pense que le, le nous devons tous saluer et nous avons salué comme il se doit cette initiative de la mairie de la commune Thiès-Ouest Euh, et nous avons pris la décision lors de notre réunion d'aujourd'hui, une réunion des maires et de leurs adjoints, nous avons pris la décision non seulement de renforcer notre unité pour faire avancer Thiès, mais également, dans le cadre de ces actions précises, de nous retrouver à chaque fois pour parler d'une même voix et agir aussi dans le même sens afin de préserver l'environnement, de veiller à ce que Thiès soit une ville agréable et nous avons décidé de le faire ensemble. Aujourd'hui, pour qu'on y arrive, il faut que les populations s'impliquent. Il faut que les citoyens s'impliquent. Et au premier chef, les citoyens qui sont vraiment riverains de cette décharge publique. Maintenant, plus tard, il est clair que euh, il y aura d'autres initiatives qui permettront de prendre en charge le problème euh, de fond, qui est euh, il y a des choses à réaménager, il y a des choses à restructurer, il y a des choses à revoir. Pour la problématique de la gestion des déchets, nous devons aller peut-être beaucoup euh, vraiment la mise en place d'unités de valorisation des déchets qui nu permettront de vraiment d'en terminer avec les décharges. Et je pense qu'avant qu'on en arrive là, au moins en tout cas ces actes permettent de, de soulager et le territoire et les citoyens. Hmm. sant yàlla bu baax xam nga bi ma fii ñëw sama ñëw bu njëkk mooy man su ma amee xalaat ci benn affaire wala ma waxtaan ci ak ñi ma ci war a waxal ba les ak ñëpp ñëw ba ñu wax ci man damay jàll ci étape euh, mise en place bi yenn saa yi nag ma wax projet ñu ni le maire il rêve foog naa bi ñu fi ñëwee léegi yàlla def na ñu ngi ci ñaari at euh, dañuy sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax a baax a baax te yaakaar naa ci diir bu gàtt euh, dinañu woo taskatu xibaar yëpp ci ñaari at yi ñu fi def won leen projet yi ñuy waxoon ni euh, le maire est-ce qu'il n'est pas en train de mais par la grâce du tout puissant je crois que projet yi wax nañ ko ma lim ci benn rek suñ jógee ci décharge bi bi ñu nee mën nañ koo murer nit ñi dañuy wax naan che lii de am nañu ko xalaat mais est-ce que dañu dañu fay fal rek ñu naan euh, lu mënul woon nekk rek ñu croiser suñu bras déedéet am na ñoo xam ne xëy na jéem jéemuñu woon mais ñu dañuy jéem jéem boobu nag ñëpp ñu ci war a fekk te damay remercier fii te li may wax du politique su ma nee man damay remercier Ibrahima Macodou Fall war nañ xam lu tax war nañ xam ni du politique dama ñëw lancer projet bi fii ñu def sànni ko internet man ne leen dama fiy def mur xam nga lu mu wax monsieur le maire jaayal mur bi. soo ko defee muru deux cent quatre-vingts mètres jaay ko par dix mètres ñun société publicité yi nekk yi sociétés yi nekk kees ñoo jënd dix mètres def ci suñu publicité xaalis boobu ñuy jëndee mur bi mu nekk suñu participation ci commune bi mu dugg ci éclairage dugg ci leneen mais loolu mu wax moo xew Europe Europe sañoo amoon droit di def ay fresque wala publicité ci mur nii rek war nañ jaal ci étape boobu soo fa amee muru deux cent quatre-vingts jaay ko par par par dix mais c'est vingt-huit euh, sociétés qui peuvent insérer publicité mais diggante mur beeg emprise bi mais nga nga nga nga nga placé fi leneen ñuy def def art décoration wala ñuy def leneen mais est-ce que dañ fa war a toog rek ni non décharge bi depuis 1950 et quelque ñu ngi fi comme li ñu wax ci centrale électrique bi 57 ba tey mais 57 ba tey nit ñi dëkk si bi dafa war a jóge ces projet là du ay du ay rêve ay nit ñoo ko defaroon fii 57 ñun tamit dañoo war a jàll ci lii amuloon mën nañ ko def bi ma waxee fii ni man 2017 damaa bëgg képp ku jóg dëkku Thiès Ouest suñ lay yóbbu hôpital doo fay dara. ma wuti ambulance yi dem Sonatel ñu mettre numéro vert en place groupement sapeur formé sama ay euh, chauffeur en ambulancier croix rouge jox ma personnel dana ma waxoon c'est un projet le maire il rêve mais ambulance yaa ngi ne ca mairie ba ñu gaare léegi Sonatel moo ci des pour def numéro sapeur formé chauffeur yi waa ki ñëw les agents de de la santé jàppale mu jeex sa kër ngay toog woote ñu ñëw jël si malaat bi yóbbu ko hôpital loolu lu ci extraordinaire dara mais il faut que ci chantier yi mais dama ne woon du ma ci waxaat tant que ambulance ñëpp ñëw teg ambulance yi man ne woon naa li gën a ñaaw mooy Thiès région amul corbillard fu ñu def ay néew ba ma ko bindee fii société yi dañoo ne ma no mais ay tubaab ba ñu ko nara may donc RSE bi ñuy wax ci entreprise lan lay jëriñ man nag wax ñu baree ma sonal man daal heure bu ma wootee dama naa lii laa waxoon def naa ko point du ma ko def man nag nag moo tax dama ciy profité gërëm képp koo xam ne yaa ngi ci dugal sa loxo muy service d'hygiène yi ñuy wax parce que xam nañ seen métier jàppal maire UCG UDE ñoom mbay ñi vraiment soo wootee rek ñu woon leen ñu réew ñu ñor. def ñuy renvoyer un peu la souveraineté du peuple li ma wax ci suuf si daal yomb la xam nga mbalit mi soo jàkkaarloo ma ñu naan dagg nañ ko ay kër ba ma ko njëkkee wax président Idrissa dafa ne ki ko daggee est-ce que mu dëkk bi fii ay kër la nii mais man su ma fi nekkee maire incha allah ñu bàyyi fii sama kii tant maa ngi fi nit du fi dëkk nit ki su xamul li baax ci moom yow yaa ko naan lii doo ko def mais demal dans tous les pays européens ay nit gi xalaatuñ foo naan dañuy dem tabaxi kër ci géej gi def lii def la mais su mënul nekk dañ naan la lii doo ko def même baloo ko ay moyens may fii nit waru fi dëkk cinquante ans écologistes yi wax nañ ni soo fi dëkkee su jàppal na sa kër lii say doom mën nañu lafañ mën nañ lii mën nañ lii mais est-ce que dañuy bàyyi nit parce que nee na man aw ma fu ma dëkk rek ñu bàyyi la nga ne fi cohérence boobu ñuy wax fii ñu taxaw lañ ko war a waxe mooy tey fii bu ñu jàppee ne commune Thiès Ouest moomu ko lépp lu fi wër ci kër ñi fi dëkk sama commune la ñuy accoucher seeni doom dem leen jël seen extrait de naissance sama commune lañ koy déclaré ñi ñëpp nekk fi boo defee social boo demee moom la plus de cent demande ci koy kër yi fi la jóge kon ñooñu lu leen boole commune Fandène parce que uniquement dañuy bañ a pousse ba fële yooyu la ñu wax ni cohérence territoriale bi ngeen daan wax ba gouverneur bee jóge fi man bindaat naa préfet pour ñu wax ci man dama bëgg ñu jël décharge bi affecté ñu ko ñu ñu clôturer ko encadrer ko dem wuti ay partenaires yoo xam ne war nañ mën a jël fii di fi def transformation di def euh, euh, utilisation déchets yi foo demee partout en Afrique léegi waxatuma sax Europe nit ñi commencé nañ ko yooyu c'est pas des projet fous parce que mbalit maa ngi société yaa ngi taxaw bëgg fi li ñu des mooy état ni waaw mbalit mi seetlu nañ ni fii mu nekk war nañ affecté nañ ko commune bi maintenant xam lu ci am maire mën naag mënul mais du ñu nekk ci ay détails fi ma lay wax ni du ngi nii fii ngeen jàkkaarloo lan la kër yi ñuy tabax kenn moomu ci kër yi àjjuma passé lañ doon wàcce kaamil pour maire dee nee nañ et pourtant l' état est là les gens sont là ils sont en train de benn kër amu ci kayit courant laa fa bëgg dugal mu tëma et tout le monde sait que Mbourkat est parmi les dix huit quartiers de la commune Thiès-Ouest soo ko waxee ñu maire bi wax ju lay wax mais loolu mooy liy dëgg et les journalistes doivent aujourd'hui bu ñu jógee fii sujet yi ma leen wax ñu dem cent ànd ak man sans ànd ak kenn dem duggal seen bopp kër gu ne nga dugg ko ne ko an sa këyit fàq dëkk la lay wax mais ku fee fàq dëkk mais Ibrahima Dia am na droit dem euh, promenade des Thiès waa dëkk fa parce que moo gën a feex un pays on doit l'organiser une commune on doit l'organiser et maintenant ñun bu ñu ko waree def vous journaliste vous êtes d'abord citoyen avant d'être journaliste et il fait partie de vos de vos de vos de, de, de vos missions d'éclairer la lanterne des populations Aujourd'hui, quand on attaque le maire par rapport à cette décharge, par rapport à cette décharge, par on doit en principe faire des enquêtes, les mener et dire aux populations que li maire moo amul dëgg wala li population ñu amul dëgg et ñu clore débat bi moi on peut pas me donner 82 000 âmes et que je me je m'attarde à à m'occuper des des détails. Bon, j'ai des chantiers à je n'ai cinq ans à et je dois en principe après ces cinq ans déposer un bilan. Vraiment, je vous remercie. Euh, fas yéene doxee. di ñaan yàlla yàlla ngeen ñaanal ñu ci parce que nag c'est Thiès qui gagne am na nu bu ñu demee c'est Thiès qui va perdre mais bu nu nekkee unité Thiès moo ciy gagné kon donc yàlla nañu yàlla jàppale ci loolu ba ñu mën koo doxee donc di wax ni lii ñuy def nag dégg naa sànq effectivement loolu la ñuy wax sax dañuy décharge bi ci commune Fandène la bokk mais intercommunalité war na mën a am ba nga xamante ni parce que fii Thiès waaye Fandène ci Thiès la bokk. donc mais euh, defe naa ni lii di mën a transférer ci micro décharge bu mel ni depuis des ba bañ ko créé ba nëgë ni mais war nañoo mën a xalaat nag ni cees gépp war nañoo jóg taxaw bu jaree sax ñoo gis le maire de Fandène ñu mën kaa clôturer parce que loolu la prévoir pour defi benn clôture boo xamante ni kenn dootu pour dugg vraiment gis mu tax mais dugg ci dëkk mais di gis yenn euh, déchets yi dafa ñaaw donc loolu war nañ ci gën a mën a waxtaan daal pour vraiment jéem a xool maire de Fandène ñu nu mën a defee intercommunalité ba nga xamante ni lii dañ koy miire parce que miir bi prévoir na ko ba dégager woon le budget ak yëpp mais euh, par la suite euh, waa Fandène taxaw ni non ci seen commune la bokk donc loolu laa doon wax ni daal nañu yàlla dimbali ba waxtaan boobu buñ ko sumbee mu mën a nekkul lu yomb je crois que buñ ci taxawee war na mën a yomb nag parce que nag euh, Augustin c'est notre collègue ba pare ci région bi la dëkk nekk ministre d'État kon donc war na xam li suñu njariñu Thiès njariñam la dafa naan loolu buñ ci waxtaanee daal war nañoo boole loolu pour waxtaanee ko pour mu mën a jëm kanam di ñaan yàlla nag li ñuy jëmbat yàlla na yàlla def mu ànd ak naataange ànd ak njëriñ parce que garab dafa am njëriñ parce que bërki démb la ñu doon def lancement Thiès Est dafa naa on a 2000 euh, arbres yoo xam te war nañu ko jëmbat R100 commencé nañ ko donc euh, garab yi dafa naa ni cinq mille c'était 5500 jóge jële nañ ko fële indi ko mi ngi foofu ñoo war nañu jël seen i quota yeneen communes yi pour que ñu mën a continuer loolu mën ko jëmbat parce que nag garab. bokk na ci médicament yi nga xamante ne moo gën a baax ci environnement parce que nag pollution bi boo xoolee presque Sénégal oto yu màgget machine yu màgget ñoo ñëpp dañuy transformer polition donc il est temps que ñu mën a préserver nat nature bi jërëjëf merci beaucoup décharge pour que mu nekk décharge contrôlée ñu lëkkaloo si nag service yi muy service eaux et forêts UCG euh, service d'hygiène euh, ADT GERT Elvia ak le colonel Samora du conseil départemental donc ñu gis ne tey mën na ni bi mooy troisième étape bi première étape bi danoo dañu woon dañuy pousse mbalit mi ba nga xam ne buntu buntu mbalit mi décharge bi mën na am visage bu rafet ñu pousse mbalit mi loué bulldozer ñaari bulldozer ñu ngi fi woon benn bi mairie Thiès Ouest moo ko loué ci xaalisam beneen bi euh, euh, mais UCG euh, ñoo ko indi bu nu poussé mbalin mi ba pare ñu jël na latérite wër nañu 2500 mètres cubes latérite tas ko fi bu ko fi tasee ba pare kon tey nag moo doon troisième bi muy plantation bi donc ñëw noonu def trouaison yi ñëw tey di def plantation yi plantation bi donc objectif bi ñu ni mooy dañuy fexe fii am visage boo xam ne ku romb doo gis mbalit day mel ni miir bu fattu ba nga xam soo rombee doo moo tax première ligne bi gën a jege tali bi dafa am ay de 10 mètres bon c'est 9 7 à 10 mètres euh, c'est assez euh, am na benn distance boo xam ne ku romb di nga mën a gis ci ginnaaw ñu def fa ay filao nga xam ne c'est un peu décoratif xaw a rafet naay tuuti deuxième bi ñu def fa ay prosopis mais dañ ko gën a jegel ay 3 mètres 4 mètres donc nga gis looy gën a progresser mu ngi gën a tuful troisième bi nag ñu defal lu ñuy wax ay mellifera yi nga xam ne moom dara du ko romb moom ay distance de la su màggee ba fatt amatul la koy romb ay dëj la donc ku fa rombati daanaka doo gisati mbalin bi da ngay romb gis fii léegi écartement boobu ñu def nag ay distance yooyu yëpp c'est pour que aussi fii nekkaale benn genre parcours sportif yi mun fee jaar def fi sport ak yeneen yeneen activités yi ñu fi mën a def mu nekk lu rafet bon donc loolu moo moo nekkoon tey activité activité tey bi quoi. sàmm ñu ngeen ko fas waaw sàmm yi ak euh, sax yenn sàmm yi mbaam yeeg ak ñeneen ñi nga xam ne sax dañuy dañuy dañuy yàq nara yàq li ñu fi def ni ñu ko fas yéene saytoo mooy d'abord ay gabions yu ci def gabions yi moom mooy mooy dóor-dóor yooyu di wëral wërale garab yi moom lañ ciy planté si garab bu nekk suñ si jugee am na ay gardiennage gardien am na ñaari gardien benn bi UCG indi ak benn bu maire bi indi ñoom ñoo fi nekk di relayante. Euh, suñu jugee ci loolu nag à long terme service yi nga fi gis yëpp ñu ngi waxtaan ci benn comité de gestion euh, intégré de la décharge gestion durable de la décharge municipale ndax waa UCG yi ñoom ñu ngi joytu fosse septique yi fii këpp euh, waa waa waa waa waa service d'hygiène waa UCG yi ñoom ñu ngi fi toujours yeneen ONG ñu ngi si liggéey si yooyu donc ñun ñëpp suñu toogee lu xur waa eaux et forêt nga xam tamit si forêt classée beeg yooyu jege na fii ñoom it ñu ngi ñu ngi saytu fii ñu ñëpp dinañ lëkkaloo ci loolu ñu xool d'une manière durable ban comité la ñuy mettre sur place ba mu mun a saytu saytu loolu yëpp suivi bi nag garab yi eaux et forêts ñoom ñooy assurer suivi bi arrosage bi ak ak traitement phyto yi mairie bi moom mooy joxe charge yi mooy jënd produit yi mooy joxe aussi carburant bu siy dem pour loolu. mën nañ ni activité tey bii rek bi ñu fi eh, bi ñu fi bi bi ñu fi dajalee tey reboisement maanaam reboisement bi. mën na ni li ñu fi dajale xaw war naa xaw a jege li ñuy wax 3 millions euh, ndax camions yi ni jën nag carburant yi ñu ci def ak li li ñu mobiliser yooyu yëpp donc loolu da nga ci danga nga ciy teg maanaam euh, latérite bi soo ko estimé woon dina nekk loo xam ni lu bëri lay doon latérite bi nag en collaboration ak UCG lañ ko amee donc euh, soo su jugee loolu bulldozer ñëpp xam na nañ dafa cher maire bi bulldozer bu mu liyee mu def fi 5 jours loolu tamit soo ko ci tegee dina nekk leneen lu lu lu lu takku. ay façon décharge nee nañ am na décharge sauvage décharge contrôlée lii nag nekkatul maintenant décharge sauvage décharge contrôlée la nekk di jëm parce que rideau d'Ar bi sa pour vraiment que maintenant c'est une décharge contrôlée mu def nag maintenant la technicité naka lañuy def ba xayma mbalit mi ba rendre ko vraiment compostage ndax mbalit dana dem ba nekk compostage ñi koy ji ci garab décharge contrôle aussi dañuy per dañuy éviter euh, ndox mi nga xam ne moom moo polluer mu infiltrer ci nappe bi ndax tey bu ñu amee dëkk bi nga xam ne dafa am ay teen teen yi nit ñi di fa jëfandikoo tey bu infiltrer ci nappe bi mun na dem ci teen ba euh, contaminer ko nit ñi lekk ko mooy dégg malaadi jaare yi donc c'est très important donc clôture bi aussi day permettre aussi animaux domestiques yi bañ fa dugg di dem ci kër yi ndax mun nañ dugg ci décharge bi jël fa ay neefere dox ak moom dugg ci kër gi xale yi foofu laal ko seen loxo jo boole ko ñam lekk mu indi leen ay problème keñe yi aussi dañuy jóge fii ci dëkk yi wala ci kër yi ñëw ñëw fii wut fi li ñu lekk dem moustiques yi aussi fii la ñuy ñëw jël fi seen lieu de pont nen fi yenu yóbbu ci biir kër yi ah pali bi répandre ci dëkk bi donc bu ñu nee décharge euh, contrôlée lii moo tax lii nag ñun suñu technicité moo ngi fi te maire moom nga ca ngaa laama ndax chaque fois dina ñëw si ñun nañu lan ngeen xam si li génneel leen ñu solution bi loolu daal vraiment au nom de la du chef régional d'hygiène de Thiès Yaya Sonko son adjoint Mané et euh, chef Silla qui est le coordonnateur vraiment ñoom par leur voix ñoo ngi leen di gërëm di leen sant nee na Alioune Sow ñoo ngi koy gërëm di ko sant ndax gëm na li muy def bëgg na li ñuy def alhamdulilah rabbil am na beneen aussi beneen phénomène bu xew par rapport au vidange sauvage clandestin des camions vinager tey fosse boo fosse yooyu ñuy ngacc dañuy dem voie polytechnique bi taxaw fa këpp ko fa fosse yooyu la ñuy jël dem côté yoonu kër Massamba Gueye bi këpp ko fa des fois fii ci kanam ci daara pël bi la ñuy ñëw këpp ko fa te ñun ñëpp xam nañ ni les les fosses septiques regorgent des micro-organismes qui peut transmettre la maladie typhoïde mu ngi fi paratyphoïde mu ngi fi diarrhée ngi fi dysenterie mu ngi fi ah, ah, filariose mu ngi fi et cetera et cetera te yooyu yëpp ñuy per ñuy payer les pots cassés mooy ñi nga xam ne ñooy responsable ñi nga xam ne ñun ñoo yor suñuy doom donc tey bu ñu leen wuteelee foo xam ne war nañ fa mën a def di fa sotti ñun ñu leen di contrôler di fa désinfecté di aar environnement bi vraiment bu ñu ko defee dinañ régler problème mu dëkk bi ndax am na yoon lu mu ci wax mooy défaut de euh, de défaut de vidange fosse septique sur la voie publique yoon nee na ku ñu ci jàpp dinañ la téye ñaari weer ba ñaari atu kaso daan la deux cent mille ba ñaari million kon ñi koy këpp dañuy daan aussi seen doole war nañ leen mën a wutal ñuy recaser loolu réfléchir oon na ci ba maire envoyé woon staff bi ba ñu vraiment ba ñu xool ko mais il s'est trouvé que la il s'est trouvé que aussi ñu ne peut-être communauté rurale bu Fandène la bokk dinañ bind maire bi et cetera et cetera gouverneur diligenté woon noonu la ak maire vraiment mujj gi ñu affecté ko donc vraiment je demande ñuy aider assister population bi par rapport à ça ndax tey bu oto yi ne du ñu vidé maare day taal donc loolu daal euh, monsieur le maire loolu laa amoon pour éveiller la ko nga xam ne Alioune Sow mi ngàcc ngaa laama euh, maire Thiès Nord aussi ñëw na aussi saisir am na ñu ñu def pas mal vraiment ku nekk li nga def rek la ñu wax vraiment ñun tamit aussi ñu baax lañ ñu jar a encadré lañ waaye nañ xam ni ñun suñu liggéey mooy ñu assister leen yéen maire ñun suñu liggéey mooy assister leen ci vidange fosse septique sur la voie publique si construction latrines sur la voie publique sur euh, dépôt de gravaille sur la voie publique sur dépôt d'épave sur la voie publique sur dépôt euh, de ferraille la voie publique loolu suñu liggéey la ñun la ko yoon jagleel kon ñun ñoo ko war a def waaw ñeen ñaa ngi leen gërëm di leen sant